xanaa bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral am sañ-sañu saytu waa Y'en a marre ko wax yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm lépp jóge ci askan wi dellu ci moom di li ñu gëm njiit yu fonk askan wi dogu ci ay bëgg-bëggam doon ay royukaay am lu ñuy jomb tey jubal ndenkaane bu amul saytu dafay yomb. mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci émi seen émission gox bi ci réew Rewmi TV émission gox bi itam di ci dalal neer ni ki tey Yves Lamine Ciss mooy maire bu commune bu Morolan moom itam moom mooy premier président. président commission bi nga xam ni moom mooy au conseil des collectivité territoriales xam ngeen ni au conseil des collectivités territoriales fan yi yëpp amul njiit ba nga xam ni itam moo fa nekk ndax président de la république dafa daal di jël décret daal di fay génne ki nga xam ni moom moo di Aminata Mbengue Ndiaye ci beneen wàll gi itam conseil économique social environnemental itam génne fa ki nga xam ne moo di Abdoulaye Daouda Diallo daan waxtaan ci la nga xam ni itam moo jëm ci au conseil des collectivités ga nga xam ni itam am na ko ci wàllu wi ni mel ci kàddu yi ki nga xam ni moom moo di Yves Lamine euh, Ciss moom mooy maire bu commune bu Morolan kon monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax ñi nga nangoo wuy si sunu invitation. man defe naa ni gërëm bi man la war maa leen war a gërëm. Mhm. ngeen may ma opportunité ma ñëw fii waxtaan ak askan bi ci seen émission gox bi. Mhm. defe naa ne lii yaa waa Y'en a wax <laughs> loolu moo am maanaam nit ñi buñ la joxee seen kàddu mm-hmm. defe naa ni da nga war a leeral da nga war a chaque fois mm-hmm. ñëwaat di leen wax fan nga toll mm-hmm. bu dee am na lu dox nga wax ko bu dee am na tamit lu am jafe-jafe nga lii am na jafe-jafe. Mm-hmm. mais l'essentiel est que képp ku ñu jox. baatu askan bi. Mm-hmm. sa wargaan moonam mooy nga delloo askan bi lu mu moom. Mm-hmm. comme yow ubbee nga ko ci li nga xam ni moo jëm ci askan bi. bu ñu la dénkee itam da nga war a saytu wax fi nga xam ni tey fa commune bi toll mais liñ la bëggoon laaj rek mooy Yves Lamine Ciss kon commune bu Morolan fan nga toll ci commune bi. ak sama histoire dafa lié je pense que léeg-léeg nit ñi peut-être du ma ci ñëw tellement mais bi ma amee sama maitrise université en sciences économique mhm. dama dellu Morlan. ma dugg nit nit foog ni kii dof la ndax jamono boobu nit mënul imaginer nit ku am maitrise ñëwaat ci gox yu mel ni Morlan mais bi ma dellu see Morlan dañoo créer benn association bu mag. ñu tuddee ko comité de gestion pour le développement de Morolan ñu amoon nekk ay partenaires mel ni ki Caritas mel ni ki Enda Graf. Ah, ñoom dañ fay bëri dañ fay intervenir ah. voilà donc euh, après finalement ñun association bu dem ba presque ëppoon communauté rurale bi doole maa ngi fàttaliku demoon na ba sax président communauté bi daan wax. Mhm. yéen état ngeen ci biir état bi donc pour wax ni maanaam association boobu lu mu liggéey Morolan dafa bëri. bokk na ji tey dinaa la peut-être euh, jox information boobu. oui allez-y une rajo communautaire. Mhm. maanaam association boobu moo moo ko indi foofu pratiquement. Mm, parce que moo lijjanti chez euh, fréquence bi ak yooyu yëpp. Mm. donc ci ci maanaam ci dynamique boobu la nit ñi ñëw ci man mu ni naa dugg ci politique. bëgguma woon politique parce que j'étais dans la. société civile da nga woon da nga effacé woon quoi. voilà j'étais dans la société civile man mm. xaw ma woon parce que dama doon sax saboter politique. d'accord mais après ñu convaincre ma ñu ni li def nii soo duggee ci politique peut-être day gën a liggéey bi ci day gën a tar noonu laa duggee politique 2009 2005. donc euh, avec euh, maa ngi euh, nuyu au passage vraiment ou bien di en di ko ñaanal. Mhm. monsieur Ousmane Tanor mhm. na ko yàlla yërëm. parce que ah je me rappelle le 5 mai 2005. ñëwoon na Morna pour installer ma. Mhm. politiquement. et je pense que ci quatre ans yooyu. amuñu woon benn moyen je me rappelle même élection yi le parti socialiste nous avait donné trois cent mille francs. pour la campagne. <laughs> électorale. mais nous avons gagné les élections parce que je vous dis que non seulement on oh, me connaissait xamoon nañ ma mais dama dugg ci kër yi yëpp je fait le tour de Morlan en quatre mois chaque jour jour pour jour. c'est important wax ak askan bi. Mm-hmm. donc euh, di wax ni ñun amuñu moyen ñëwuñu pour indi moyen. Mm-hmm. mais dañoo ñëw pour defar Morlan. donc objectif bi moo doon pour ñun lu ñuy def ba Morlan le doomu Morlan am kóolute ci Morlan. parce que nit ñi dañu demoon ba perte de confiance Mor la amatuñu yaakaar lu ko waral après maintenant lan moo lan mooy conséquence bi mooy exode rural massif. mu tombé nekk ak ay euh, réchauffement climatique yi yàgg na peut-être ñu ngi koy soog a wax mm-hmm. mais quand même amoon na jamono yooyu ay années quatre-vingt même soixante-dix quatre-vingt dafa doon am ay euh, ay euh, ay période yu xam ne nawet bu xam ni wax moom naa du ñu góob day taw ba presque yëf yi war a ñor waaj a ñor taw bi arrêté donc loolu ça a créé donc un dysfonctionnement ci communauté bi ba ñu bare dem dëkk Dakar wala feneen wala feneen. mais tey voilà. voilà donc loolu moo nekk donc donc nit ñi effectivement. sa avaient perdu confiance donc ñit ñi ba am na un jeune qui me disait que doomu Morlan bu amoon 12 ans dafa war a génn Morlan. soit dafay il a le CAP d'entrée en sixième dafa war a dem jàngi feneen. ou bien alors voilà il doit sortir parce que dafa war a dem nekk ci nekk ci il doit apprendre un métier soit mu nekk apprenti oto. amoon na jamono je pense que car rapide yi nekk Dakar. Hmm. koo fee laajoon bi fu mu dëkk ñu bari Morlan lañu dëkk. amoon na jamono c'était vraiment un métier voilà métier waa Morlan mais je pense que ñoom après ñu jël commune bi commune rurale bi on s'est battu ñu xee. ba quand même tegaat Mont Rolland ci ci ci anam yi wër. ba tey mën naa la wax ni peut-être dañu dugg ci détails yi. oui oui mais mais quand même. Euh, aujourd'hui là où on disait exode rural c'est l'exode urbain qui a de ce produit. maanaam waa Mont yu bari nekkoon fii. ñu ngi dellu Mont Rolland. d'accord maa ngi maa ngi il y a pas longtemps demoon naa benn projet ferme parce que on a là-bas des fermes agricoles. qui ki qui qui qui il au moins 3000 emplois créés. Et les jeunes, ils reviennent, les femmes, ils reviennent au village. On a fait là-bas ben, ce qu'on fait à Tivawan là, mm -hmm. actuellement, Bourde. Bourde, oui. Nous organisons ben Bourde. Il y a la semaine passée, le vendredi, je pense. D'accord. Les, madame Fa, ah, comme nit yi ñu ngi bourde fii ça veut dire que nit yi nangu nañu projet bi léegi parce que amoon na jamono y avait des projets pour mettre ko en place quand même demoon nañu ba cour suprême. d'accord mais dañoo ko gëmoon même bu dee sax wax nañu lépp ci suñu kaw dañoo jaay dañoo am huit milliards loolu xam nga sa diggante ak borom. sa borom. moo ëpp maanaam fuuf sa diggante ak nit dëgg la. donc nit loolu bu lay def. na sa ah, ah, ma amal conscience bu tranquille d'accord bi ma waxee waa ji loolu waa ji bu ne ma ah monsieur le maire yàlla yàlla moo lay fay. loolu bu ci burdu bi. la ma la ma wax parce que ma ne comme nit yi ñu ngi def burdu fii donc ça veut dire que léegi ça va très bien. waaye mu ne ma fu mu nekk nii waa Morna yi nekk Morna ñooy yónnee xaalis Dakar. waaw kon mbir mi dafa changé. avant c'était le contraire. maanaam waa Morna yi dañ doon hmm. xaar waa Dakar yónnee leen xaalis. pour dund d'accord mais aujourd'hui les choses sont en train de changer mais. Hmm. pour dire rek pour man rien n'est impossible. gëm la gëm-gëm la. Hmm, gëm-gëm la mais ànd ak takkute ànd ak aussi wéer lépp ci loxo yàlla. parce que pour man aussi c'est très important. Mm-hmm. nit moom bu fekkee ne yow da ngay mu tax le découragement nit ñi war ñu découragé njiit warul découragé. Mm-hmm. njiit warul gedd. il faut que nga am gëm-gëm nga persévérer soo ko defee au bout y a que des wax nga exode vraiment wax nga exode bi c'est important ak tey changement bi nga xam ni itam am na ci wàllu wi ni mel mais beneen question mi ngi nii même bu fekkee ni am na ay avancé ñu ngi koy wax coowal suuf. foncier bi ci commune bi mel ni soppeeku léegi war na am na ci commune ba. non coowal suuf moom pour man il faut mu am il faut que peut-être demander fan na coow bi ñu jógee xam nga y avait y a y droit coutumier lan la waxoon mooy suuf si nit yi ñoo ko moom maanaam par exemple et puis Morlan lan la woon Morlan c'est des clans maanaam ay xeet y a xeet ñooñu ñoo ñoo moomoon ñoo ŋànkoon suuf si parce que lan la woon da ngay ñëw taal wala nga taal taal moo gën gënoon bari boo taalee fa mu yem rek yaa ko moom loolu mu noonu lañ la doon amee suuf maanaam suuf si nag c'était de c'était et puis Morlan c'était même la communauté ndut ndut yi ñoo fa ëpp maanaam euh, tradition bi maanaam euh, nijaay jarbaat moo doon doon nijaay. Hmm. maanaam suuf si. Hmm. bu dee mu ngi fii euh, ki nekk fii ci suuf yor suuf si yor maanaam alalu xeet bi yëpp. bu gaañoo kenn ci jarbaat yi. ki gën mooy mooy doon. Hmm. maintenant y a eu changement changements changement yi daan la mooy benn président Léopold Sédar Senghor en 1964 mu indi loi sur le domaine national. mu ne quatre vingt maa ngi koy déglu démb rek ci télévision muy wax ni quatre vingt quinze pour cent du du du du domaine national du non du terroir du Sénégal appartenait au au au au au droit coutumier appartenait en tout cas au chef coutumier. d'accord après mu ne mais j'ai transformé ces ces quatre vingt quinze pour cent. en faisant en faisant le domaine national maanaam dafa jëlee suuf si ci loxo chef coutumier yi mu indi ko domaine national maanaam loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. alors bu indee domaine national alors que nit ñi ba léegi ñu ngi seen repère bi maanaam mooy le droit coutumier coow dina am. doll bi mu ngi fa ba léegi. mu ngi fa ba léegi mais lan mooy tax euh, askan wi. doll bi nga jàpp ni euh, changement am na lan moo tax nga jàpp ni changement am na léegi. non changement bi am mooy lan. wax naa la sànq retour bi. wax naa la aussi ne économiquement. voilà Morna a beaucoup changé. d' accord. dem la wax ni maanaam te aujourd'hui quand je, je pense que c'est vraiment une expression que j'aime souvent dire, quand le bâtiment va, tout va. Ah, c'est important. Aujourd'hui, euh, pourquoi kii Parce que euh, du point de vue éducation, la commune de Morna a définitivement des résultats, xam ni waxuma keneen defu ko de mais des résultats exceptionnels ndax ñun dañu bu ñu ñëwee dañu fekkoon foofu ay école yu xam ni maa ngi fàttaliku am une fois ñu def benn réunion d'évaluation de l'année scolaire maa ngi fàttaliku un inspecteur disait aux enseignants yéen seeni doom yi ñu ngi école privée catholique pourquoi da ngeen ko yóbbu seeni école yi ngeen di jàngale parce que dañu demoon ba presque école publique bi dañ ko bàyyi en rade mais bu ñu ñëwee dañ ko jëmmal dañoo fexee ba et maanaam enseignants yi nekk ci condition yu leer dañoo fexee ba Morlan amatul abri provisoire dañoo fexe ba changer résultat yi parce que les les enseignants yu xam ne ñu ngi CM1 ak cm dañ leen motiver pour def ay cours de renforcement et ça loolu dafa changer complètement résultat yi. Mmh. def boo demee même ci euh, dañoo fekk foofu benn CM. oui mais ñu fexe ba am lycée commune Morlan moo tabax juróom benn classe yi ñaari seconde ñaari première ñaari terminale ñu fexe ba am lycée. lycée bi tamit au début du commencé am résultat euh, am résultat mais aujourd'hui mu ngi changé. donc pour wax la ni. Hmm. même ba université tey boo demee université Touba université Kaolack Ziguinchor. université foo ko mën a wax fii rek Dakar waxutuma waxuma Dakar mais fépp ci Sénégal. Mhm. ñun on dañ fa am ay ay ay logement beneen bi maanaam mooy doomu Morna yi bëgguñu on a zéro enfant dans la rue. presque c' un combat. Mhm. mais ñu ngi koy réussir parce que dañu créer nañ fa benn école sociale. d' accord bépp xale bu ñu dàkk ci école publique bi. maanaam lycée bi. Mhm. ñu jël ko et puis y' a aussi un centre de formation professionnelle boo xam ne état bi moo ko moo ko c' est public. Mhm. mais yooyu yëpp day tax xale yi xale bu génn. à moins que sa waajur yi bañ a bañ na toppatoo bu baax. mais buñ la toppatoo benn xale mënul nekk ci mbedd bi parce que mën nga dem ci école sociale bi wala nga dem ci centre formation même bu amul certificat. mën nga dem ci centre formation bi ñu tàggat la ci métier. te loolu. Euh, beneen bi maanaam mooy dañ ko renforcer en mettant en place parce que 70 millions yu xam ni boo demee école Dakar yi. école formation yi. doomu ñu ngi fépp. on paye au moins 70 millions de bourses. da nga leen di jàppale quoi. ci on paye on paye des bourses. on paye des bourses on scolaire. on paye et na xale yooyu yu bare ñu ngi ci logement étudiant yi donc pour dire que euh, l'enfant de Morlan même si je sais que agriculture bi maanaam cultivateur bi maanaam fonction boobu mu ngi reculer. Mhm. on tient à ce que maanaam xale yi Morlan yi. am métier pour que demain. Mhm. même sa sa même boo demul tool parce que xale yi dematuñu tool donc comme dematuñu tool nañu fexee ñu am métier. donc euh, l' soo ñëwee sport c' la même chose. santé santé aussi. Mhm. boo demee tey au niveau de la santé vraiment les gens de monde là ils se soignent y' a pas de problème parce que les médicaments sont là disponibles donc euh, euh, y' a on a des postes de santé mais mais qui même parfois même interne font des des ils ont des lits d'hôpital, ils ont vraiment tout le système pour euh, soigner les, gens. En cas de pépin, maintenant, ils peuvent évacuer à l'hôpital de Thiès ou de Tivaouane pour dire que vraiment, de, à tout point de vue, nous sommes en train de travailler pour que même les artistes les artistes de Morone seen bopp. Mhm. non normalement quand le développement c' est tout. Mhm. boo laalee boo defee dara ñëpp a. ñëpp ñëpp ku ne chacun doit a gis boppam ci c'est ça la vie aujourd'hui artiste Morna yi on a acheté des des des des du matériel sophistiqué dernière génération euh, tey jënd aussi fexe nañu ba aujourd'hui il euh, y a un un studio d'enregistrement qui est en cours de finalisation pour les artistes de Morlan boo demee Morlan tey aussi presque vingt cinq à trente artistes am nañu carte SODAV. pour dire que euh, tout ça c'est c'est notre travail pour l'accompagnement donc euh, vraiment à tout point de vue mhm. on est ngi gunge commune Morna askan bi mhm. pour que Morna nekk comme ni ma la waxoon sànq rek ñu dem ba wóolu seen Morna mhm. parce que nit ñi en bu ñu génnee seen dëkk yi rek di dem Dakar wala di dem fenaan parce que dañoo perte espoir ci gox bu ñu jógee waaw ah, c'est important mais euh, fan la Morolan di jëlee xaalis lii ngay wax ni yëpp voilà recette frais de bornage. les frais de bornage moom systématiquement c' est payé au trésor et voilà, et la commune fait son budget. Sinon, y a aussi des subventions de l'État. L'État mmh. fait des subventions, les fonds, le fon de dotation, les fonds d'équipement. Voilà, il y a aussi CLVA, CLVL. Mhm. Mhm. yooyu ñëw na yéen jot ngeen. bon am na ñuy jot ah, je ne sais pas si ndax yëpp ñëw na parce que je pense am na yuy ñëw. Mhm. mais xaw ma ndax yëpp ñëw na parce que j'ai pas échange échangé wu ma ak secrétaire municipal bi mu xam ne moo yor loolu. mais am na yuy ñëw quand même. ci commune bi. est-ce que fonds yooyu doy na. non fonds yooyu xaajul doy. je pense que euh, aujourd'hui euh, wax naa ko temps yi maanaam daa mel ni dañoo taxawal euh, décentralisation waaye bëgguñu mu dem décentralisation mooy lan wóolu gox-goxaat yi. Mm-hmm. fexe ba ñoom ñu am moyen pour demal seen bopp mais loolu amul parce que boo xoolee tey lu muy jot ci état bi c'est 5 pour cent de la TVA. maanaam TVA mooy taxe yi xam ni ñu ngi koy fay dañ ciy dañ ciy comp maanaam bu dee téeméer dañ comp ci juróomi dërëm ñu tasaare ko commune yi mais loolu peut-être peut-être plus plus euh, loolu fonds de dotation ak fonds de concours yi. peut-être plus euh, kii bi mais maanaam lu ñuy jot. Mm-hmm. ci état bi mëtul dara mëtul cent millions pratiquement ou bien cent millions. il faut ñu cent milliards à l'ensemble des communes des collectivités dafa tuuti dafa tuuti. <laughs> maintenant loolu loolu loolu boo ko comparé avec le Maroc. ils sont à vingt cinq pour cent de la TVA yoo xam maanaam euh, téeméer boo jël ci te seen TVA ñoom dañuy jël fanweer yi jox ko euh, commune yi moo tax communes yi nekk foofu mais boo fa demee dañuy recruter ay ay bac cinq ils recrutent des des spécialistes dans tous les domaines ba euh, boo demee Rwanda ñooñu dañoo dem ba sax communes yi nekk foofu ñoom ñooy tabaxal seen bopp seen tali yi donc pour wax la ni maanaam. décentralisation bi. Mhm. te indi nañ ko Sénégal te bokk nañu ñi jiitu parce que boo xoolee ay Gorée ak yooyu 1872 déjà commencé woon nañu am ay communes. Mhm. donc ba léegi nii ñu teg acte 1 72. bon muy acte 0 c'est 1972. acte oui. 1 72. Oui. acte 2 96 acte 3 mais boo xoolee ba léegi. Mhm. des na donc amul évaluation aussi. bon ñu ngi évaluer parce que je pense que balaa ñuy teg acte 2 bi je pense que on a acte 3 on a dû certainement évaluer acte 2 bi parce que boo boo dindee région yi. Mhm. comme collectivité territoriale nga indi. département yi donc je suppose que. amoon na euh, évaluation. mais beneen bi maanaam mooy euh, fu mu nekk nii acte trois bi maintenant jeexagul. d' accord jeexagul Yves Lamine Ciss mooy maire bu commune bu Morolan moom mooy président commission numéro un bu haut conseil des collectivités territorial xam ngeen ni fan yi ci bopp ba Aminata Mbengue Ndiaye moo ko daal di jiite woon waaye dañ ko fa daal di jëlee yéen déjà Yves Lamine Ciss naka ngeen. ngeen ni euh, dundee li ni mel au niveau du haut conseil des collectivités territoriales ak seen njiit la nga xam ne tey jëlee nañ ko ca bopp ba. waaw loolu def ñu bett mais def ñu metti aussi xam nga ne du ñu lu la moom mën na. Mhm. parce que ñun xaar ñu ko woon parce que ñun suivre nañu li li xewoon assemblée bi ko président de la République monsieur euh, Bassirou Diomaye euh, bu mu envoyé donc benn décret pour que ñu. tas pour que au conseil manaam indi dugal ci loi bi pour ñu tas au conseil ak CSE. <laughs> loolu suivre nañ ko mais dañ ko député dañ ko rejeté woon bu ñu ko rejeté tamit dama jàppoon ni monsieur le président am na beneen façon pour tas HCCT parce que yàlla may na ko loolu parce maanaam mooy référendum. <laughs> ou bien alors mu xaar ba mu nekk majoritaire à l'Assemblée pour mu tas ko je pense que loolu. président ci boppam ci boppam président mënul xaatim pour tas HCCT maanaam ci loi yi prévoirul loolu. loi lu mu prévoir rek mooy assemblée wala. ndax au conseil di fàttali référendum moo ko indi. voilà référendum moo ko indi kon référendum moo ko mën a tas mais comme as euh, assemblée bi moo représenté peuple bi aussi mën na ko tas. donc ci loolu dañoo jàppoon ni loolu la doon xaar. mais mënu mu ñu xëy ñu dégg ni dàkk nañu suñu président bi loolu tamit def ñu métti métti bu baax a baax mais bon mais comme président bi am na ci droit parce que loi bi dafa wax ni en cinq article 5 loi euh, de 2016 de 2016 24 du 10 du 14 juillet dafa wax ni en son article 5 président de la euh, président du haut conseil. Mm-hmm. dañ koy nommer par décret décret moo koy fal. waaye tamit mën nañu ko. dindi tamit. par un décret donc c'est ce que le président a appliqué mais lu ñuy lu lu mais lu ñu lu ñu lu ñu doon wax rek c'est la méthode maanaam nuñ ñu ko defee moo rafetul. parce que élégance élégance bi moo des parce que pour man Aminata Mbengue Ndiaye ana sénégalais bu ko xamul. liggéeyal na Sénégal façon bu ne ay affaire parité euh, développement développement des des des groupements féminins promotion de la femme. elle a beaucoup fait pour ça te man defe naa ni bu mu nekkee ministère élevage def na liggéey bu mu ci ayib ministère de la pêche aussi donc avant ça il était euh, comme j'ai dit tout à l'heure nekkoon na ci ay yeneen ministère def na liggéey bu mu ci ayib ku mel noonu woon ko ne ko ah dama bëggoon def lii lii ak lii nga tàppe ko médaille sax officiellement jox ko décorer ko officiellement pour service rendu à la nation maintenant soo defoon loolu ngeen tàggoo ak jàmm ci je que loolu moo gën décret rek waa naan dàkk naa am deme nga jaay dàkk naa Daouda Diallo je pense que ñun nañu entre les hommes politiques mhm. nañu assainir suñu relation yi je pense que nañu rafetal parce que Sénégal tey am na ay xale xale yooyu ci ñun nañuy roy mhm. mais nañu rafetal diggante yi parce que jàmm moom je pense que moo gën ci Sénégal que ñuy nekk fii di di di defante di xëccoo amul njëriñ daal mm. pour man euh, président bi lu mu def am na ci mm-hmm. droit mais lu ñu regretté rek mooy nu mu ko defee mm-hmm. moom lañu ñu xawul rafetlu te am am naa yaakaar ni tardewul parce que pour man mm-hmm. euh, même HCCT bu ñu ko naree tas wala wala kii on peut faire une on a fait une une des assises de de la justice <laughs> les gens ont, sorti des conclusions. oui mënoon nañu def euh, assise des institutions parce que y a eu une commission de la réforme nationale de la réforme des des institutions. Boy Macky Sall taxawaloon na ko. commission boobu moom moo indi indi na ACCT indi na CSE indi na na conseil euh, consultatif des des des des Sénégalais de l'extérieur indi na ñetti ñetti kii yooyu donc pour man waroon nañu ko wax càmbaraat même les assises national assises nationales yi. Euh, le le conseil euh, le euh, mu ngi ci biir. au conseil du dialogue social mm-hmm. mu conclusion yi. Mm-hmm. te te te Pastef xaatim na en 2018. Mm-hmm. les conclusions du du des des assises nationales. te loolu te haut conseil mu ngi ci biir. donc pour dire que c'est vrai que c'est une promesse promesse électorale peut-être. mais amoon na ay engagement yoo xam ni Pastef jëloon na ko. même le président Diomaye am na xaatim boo xam xaatim na ko benn pacte. pacte boobu ça vient du sursaut citoyen bu xam ni. Mhm. premier ministre euh, Loum. ñoom Mamadou Ndoye Mamadou Loum. Mamadou Lamine Loum ñoo ko créé te te ci biir loolu. Mhm. amoon na au conseil. te néewoon na aussi les les les conclusions des CNRI yi dañ koy respecté donc boo jëlee ay engagement yooyu tamit voilà c' est vrai que. Euh, politique baax na waaye baax na waaye je pense quand même que. te au conseil peut être dañ ci ñëwaat léegi. d' accord mais mais maintenant euh, lan nga jàpp nii ñi jàpp naan au conseil des collectivités territoriales ak euh, conseil économique social environnemental ay institution budgétivore la yi nga xam ni tey dañ ko fi indi maintenant utilité au conseil. Yves Lamine Ciss comme yow euh, yàlla def na ngay euh, président commission bu Haut Conseil utilité bi son importance c'est quoi. waaw defe naa so mu nga may ma balaa may wax utilité bi peut-être ma wax historique bi xam nga document ma yor nii. Mhm. document bi document UA la Union africaine. xam arabe la. yi mhm. i African Union. Union africaine. oui INAO je ne sais pas la <laughs> mais INAO. africana. xaw ma ban langue la peut-être portugais la ou des choses comme ça. pour dire que lii. oui c'est un dossier document de de document boo xam ni dafa jógee Union européenne. Mhm. document bi lan la lan la wax maanaam dañoo wax ni. le conseil supérieur des collectivités territoriales mhm. maanaam conseil bu xam ni dafa ëmb collectivités territoriales Afrique yëpp dañ ko bëgg a indi dañoo bëgg a sàq benn bànqaas ci biir. union union africaine. maanaam dans la gouvernance dans l' architecture gouvernement de la gouvernance ñu ni dañ fa dafa war a am donc euh, benn euh, boo xam ne dañ kii donc loolu. déjà loolu waxoon nañ ko beneen bi maanaam mooy en 2005. amoon na réunion bu amoon Afrique du Sud. d' accord Obasanjo président kii proposé nga conseil supérieur pour que ñu ñu si des cultures territoriales pour que ñu am ko ci biir 2005 2012 amoon fii rencontre. collectivité territoriale ak ville yi Africity bu mu amee fii président Macky Sall isla jëloon na kàddu wax ci lu mel noonu mais bu mu ko waxee tamit mu ne dina ko Euh, yeggee les président des des des des des présidents. chef d'État yi. les chefs d'État yi. dina ko yeggee chef d'État yi. Mhm. gars donc noonu après union union africaine mu ni léegi président Macky Sall. yow ak commission. piloté leen ko yow piloté ko. Mhm. que ngeen vraiment fexe ba ñu am lu ci kii donc ça veut dire que. Mhm. réflexion bi c'est une réflexion. au niveau de l'union africaine. bu dee sax nit ñi. ñu ngi wax ni Macky Sall dafa créer euh, HCCT bi pour dugal ay ay nitam yi mais est-ce que loolu la non non non du noonu je pense que dinaa ci ñëw léegi beneen bi mm-hmm. mooy en Afrique euh, beneen bi maanaam en Afrique par exemple déjà y a des pays comme le Mali. Mm-hmm. en 1992 bu ñuy defaat seen constitution bi ils def nañu ci biir constitution bi conseil supérieur de collectivité territoriale. donc ça veut dire que dëkk yu bare. Mm-hmm. ñu ngi ko doon def même initié nañ ko daal initié nañ ko même en mai Euh, li li boobaa aussi initié na lu mel noonu dans ces dans ces c'est pour dire que nit ñi depuis longtemps quand même ils ont réfléchi sur euh, li difficulté des organes maintenant beneen bi maanaam bii moom mooy bii xam ne am na maanaa mhm. mooy après ci la Union africaine décidé nii comme demee na noonu président Macky Sall ak gouvernement am vraiment def nañu liggéey bu mucc ayib ci côté boobu ñu ne léegi siège conseil supérieur de collectivité locale dañ koy def Sénégal fii Dakar. mu nekk lu am solo voilà donc loolu lu am solo la. donc pour man euh, initiative bi du initiative président Macky Sall mais initiative wu. Union africaine la oui. donc ñu war a fexe ba euh, dëkk bu ne am ci. je pense que loolu am na maanaa ci ci ci cadre yi trop donc pour man lii moo nekkoon à peu près l'histoire de de truc là. maintenant c'est important nit ñi xam ko utilité bi. oui utilité bi maanaam mooy. lan la texte yi wax texte yi dafa def ñu wax ni comme mission da ngeen fi nekk pour xalaat. <laughs> wàllu décentralisation maanaam décentralisation mooy xam nga am na déconcentration. <laughs> maanaam. Euh, ñu créer ay sous-préfet ñu créer ay gouverneurs ñu créer même des des ministères euh, au niveau des direction au niveau des des des régions yooyu yëpp c'est la déconcentration maintenant ci ci loolu ñu ne nañ ko gunge avec décentralisation maanaam pouvoir bi mhm. au lieu mu nekk fii Dakar rek mais nañu fexe ba mhm. gox goxaat yi jot si mhm. jot si mais jot si mais c'est surtout pour la responsabilité des populations à la base donc ci loolu Euh, ñu fi fexee ba kon loolu loolu ACCT moo doon mu nekk ci diggante bi entre gox goxaat yi. Mhm. ak le pouvoir central. te loolu. on trait d'union trait d'union te mhm. loolu je pense ñu ngi ko doon def. Mhm. parce que boo xoolee document yi ñu yi ñu defar. je pense que du ma sori du ma sori sax ci ci wax yi mais damay ñëw rek ci avis avis avis yu xam na avis yi. ñun yàgg nañ ko di ko génne. d'accord mais on publie pas. parce que euh, le le le ACCT. n'est pas une du du du du comme assemblée nationale. maanaam du voter loi. ñun lu ñuy def mooy lan xalaat xelal. Mm-hmm. xalaat xelal loolu mooy suñu rôle. donc ci loolu mën naa la jox benn kii fonction publique locale. oui. grève boobu yàgg na. waaye à l'époque on se rappelle avec Sidia Ndiaye. ak Sidia Ndiaye maintenant boobu yàgg na. mais ñun HCCT joxe nañu benn xalaat mu ngi fi. pour pourquoi doog a jëluñu ko en compte. ah je mais xalaat yi bu Sénégalais bu ñu bu ñu ma déglu par exemple ñun dañoo càmbar dañoo càmbar euh, liggéeykat yi liggéeykat yi ñu gis ni euh, de premier avril 2024 euh, ci ñi li doon liggéey ci communes yi wala mm-hmm. département yi en tout cas yi nekkoon nañu fukki junniy nit ak juróomi juróomi ak juróom benn fukki junni ak juróom benn ak ñe ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom benn ñoo ñooñu la doon liggéeykat nekkoon ci kii mais ñun après na am na étude boo xam ni dafa leen classé ci ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy ñoo xam ni seen situation amul problème parce que lii amoon maanaam mooy lan grève bi lan na woon. Mm-hmm. Sénégal maanaam moo créé benn loi 2011 mu ni bépp cas bu ñu bu ñu euh, yokkee sal payooru euh, fonction publique bi maanaam état bi. faw ñu yokk ñële faaw ñu yokk yële. Mm-hmm. léegi nag ñu yokkal ñii deux mille vingt et un deux mille vingt deux ci yokkaluñu ñii grève bi commencé. fa la coow li jógee fa la coow bi jóg. donc coow bi bu mu jógee tamit sànq wax naa la loolu maintenant ñi xam ni waroon nañu mën a yokkal seen seen payoor maanaam nekk situation régulière nekkoon nañu. 6325. d' accord maanaam mooy juróom benn junni. Mhm. ak euh, ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom. ñi nga xam ne nag seen situation dañ ko war a régulariser. maanaam dañ ko régulariser. Mhm. maanaam ñu nekkoon nañu 7435 maanaam juróom-ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom am na ñoo xam ne nag dëgg dëgg ñooñu il faut faw ñu génn maanaam seen situation kenn mënu ko mhm. ñoo ñu nekkoon nañu 2776 maanaam mooy ñaari junni juróom-ñaari junni ak euh, juróom-ñaari junni non juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. donc nii nañ ko classé donc muy partie bu njëkk bi. Hmm. ñu ngi ko tuddee classeur ver beneen bi ñu ne ko classeur zone beneen bi muy ni classeur ver donc classement bi. Hmm. lan la ñu waxoon état bi ci ci ci kii bi dañu wax état bi. comme demee na nii. waaw ñi xam ni 6 euh, 000 yi njëkk yi. mu nekk classeur vert bi. Hmm. ñooñu nañu nañu wax parce que y avait une étude bu prouvé am na cinquante collectivités territoriales maanaam muy commune ak département cinquante juróom fukk yu xam ni mën nañu fay am na ñu commencé woon fay. am na comme courrier commencé nañu fay mais comme maa ngi ñëw am ñu mm-hmm. commencé woon fay. Mm-hmm. mais il y a eu parce que après les les les payeurs des yi nekk ci biir trésor yi. ñu ne il faut que ñu jot kayit bu jógee ci ministère bi parce que temps nga jotee mën ñu fay. Mm-hmm. donc dañu ne woon mais ñooñu kayit boobu dañu ko génnee pour que payeurs yooyu maanaam par mën a fay ci cinquante communes maanaam payeurs yi day fay mais ci turu communes que commune bi am euh, euh, bi zone bi ñu ne état bi. maanaam euh, communes yi mënul fexe yàlla ba ñu fay leen ñu maanaam ñu yokkal leen maanaam comme xam juróom juróom juróom fu commune laa waxoon sànq. oui ñii des. Mhm. te am ñu mel noonu nañ leen yokkal seen xaalis. xool ñu leen di jàppale. ñu jàppale leen. Mhm. pour que ñu mën a fay. d'accord mais ñi xam ni dañu war a génne mooy 2776 yooyu dañu leen war a génne ci communes yi nañu fexe gunge leen. gunge maanaam ci ci maanaam ñu ñu fexe ba ñu amaat yeneen activité donc loolu moo nekkoon proposition boo xam ni defal nañ ko état bi mais ñun proposition lañu mën nekk mais après état bi ci jëfe na ko est-ce que jëfewu ko waaw mais suñu rôle mm-hmm. mooy xalaat mooy lii suñu rol mooy lii te boo xoolee documents yi yëpp nga xam ne ñii caaxaanuñu ndax bii c'est le plan stratégique cinq ans bii amoon na beneen xam nga mënu ma indi indi document yi déedéet donc dama dama jël foofu rek jël indi fii mais bii 2017 2021 fii mooy plan stratégique bi yëpp mu ngi fi yëpp di yoo xam ne kii ne bii ça c'est le rapport 2016 2017 ça c'est le rapport 2008 2009 ça c'est un un un, un rapport d'étude bu xam ne defoon nañu ko ci wàllu statut des villes et, et communes capitales comme di région mel ni ki ak pôle urbain di Diamniadio mel ni ki ville Dakar Kaolack Thiès Ziguinchor et Saint-Louis amoon na coow bu amoon diggante euh, le ministre Oumar Gueye ak kii bi parce que dañoo proposé woon. Mhm. le statut spécial de Dakar bon indi na coow. Mhm. mais yooyu yëpp fii la jógee beneen bi maanaam mooy ça c'est rapport 2020 mais bii gën a am maanaam. mooy rapport quinquennal. juróomi at 2016 2021. bu ngi nii donc document yi boo demee HCCT yi nit yi xalaat nañu. def nañu ay proposition en tout cas président Macky Sall daan na njëriñoo HCCT. mais mais au fait léegi aux yeux de sénégalais parce que dañu jàpp ni euh, au conseil des collectivités territoriale njëriñ ba askan wi ñoom dañu jàpp ni gisuñu ko. waaw mais mun ñu ko gis parce que nuñ ko tëggee xam nga boo créer benn institution nga ne avis yi dañ koy jox rek président de la République mais boo joxee avis bu su xalaat président de la République amatoo droit dem ci tele yi di rajo yi mu ni président bi xalaat bii laa ko jox. président bi mooy xool li mu ma proposé nii ndax baax na wala baaxul comme am na yeneen conseillers aussi mën na leen laaj ah lii ñi lañ proposé est-ce que noonu ko gisee donc ñun suñu suñu mm-hmm. ko ak suñu akulaay taala. ba mu mat sëkk ba mu mat sëkk. d'accord donc bu ñu nee euh, ñun dañ fa nekk apparemment ah, damay dégg fara pour ça pourquoi may document yi. oui léegi damay dégg ñu ni defuñu dara foofu. Mm-hmm. ah lii moom <laughs> c'est yii rek damay indi tuuti rek laa indi. boo demee tey HCCT euh, le premier le premier mandature bi ils ont produit quatre mille cinq cent quatre vingt xaw ma lan cinq cent euh, quatre vingt recommandations mille cinq cent premier premier mandat bi ñun actuellement je ne sais pas on est à jàpp ma chiffre bi mais on est en de faire des chaque avis c'est il y a il y mm-hmm. donc pour man vraiment HCCT am na njëriñ bu am maanaa parce que tey bu ñuy wax payoru ay chef de village ay ay bajenu gox. ACGT joxe na ko xalaat ak yu bare nekk yu bare bare ACCT parce que pour man euh, ma jël kaawu euh, pôle territoire yi xam nga suñu nous on a fait trois sessions. Mm-hmm. première session bi moo doon ñu valider rapport quinquennal le rapport annuel de 2023. oui ça a été fait. benn après deuxième session dañ doon wax ci fonction publique locale troisième session dañ doon wax ci ci ci dañ doon wax ci. Euh, ci kii bi nu mu tuddi ci ci département yi te boo demee ci département yi il y a des incohérences territoriales bii bii mooy avis sur les bii mooy troisième session bi troisième session bi c'est les sur les incohérences territoriales. et dafay bëri coow torop ci ci ci. mais mais mais mais ñun on a pris euh, l'exemple du euh, dernier département muy Kër Massar. Kër Massar bi ñu fa demee xam nga euh, tey sax nit yi peut-être y a des changements que on a progressé. parce que boo xoolee au conseil. Parce que le slogan de cette année, c'était quoi de, Du mandat là, c'était quoi mm -hmm. Le Haut Conseil au, au cœur des terroirs. c'est important. mooy jege jege askan wi. jege askan bi te te boo xoolee. Mhm. ci mandature bi commencé nañu génn. am na nañu demoon nañu fii euh, ci ci là où il euh, kii la Tivaouane. Mhm. demoon nañ fa pour affaire zircon bi. demoon nañu Matam. pour euh, phosphate bi. parce que ça c'était ça c'était les trucs sur les la responsabilité sociétale de l'entreprise. D'accord. des entreprises demoon nañu fi sax ba Tambacounda. Mhm. donc on a organisé des missions là-bas on a organisé des missions aussi sur l'état civil dem nañu fu ne on dañuy. seen rôle def ngeen ko ba mu mat sëkk. dañuy sax invité. Mhm. ay borom xam-xam. Mhm. wala ay ministres. ay directeur ay euh, maanaam même président de d' association. Mhm. dañu ne ay eh, par exemple le président des anciens sous sous préfet c'est des gens des gens qu'on invite. Mhm. pour alimenter les avis. d'accord donc pour man. Mhm. def nañu suñu liggéey bu mën sëkk. Mhm. deux quatrième session bi comme ni mu waxee sànq. pour mhm. deux minutes ce qui est prévu. wala oh, oh, ñoom ñu bëgg ko changer ci ci ci ci làmmiñu euh, Bala Moussa Fofana moom la ñu dénk li nga xam ne moo jëm ci collectivité territoriale yi euh, bu ñu ko fi jëlee huit pôles moo koy ñëw remplacer ko. non bokkuñu changement la wala bokkuñu mission. le pôle territoire c'est comme la région rek maanaam pôle territoire dañu wàññi région yi. maanaam pôle territoire bi maanaam moo war a léegi parce que loolu loolu loolu wax nañ ko ci recommandation yi boo nee recommandation yu yu yu def nii on a même on a et ça je passe sur le président de l'affaire on organisé ça c'est de la dernière recommandation l'organisation des assises de la décentralisation afin de doter le Sénégal d'une politique nationale et de la décentralisation on n'a pas de politique nationale de la décentralisation on doit aller vers ça maanaam je veux dama bëgg a wax ni. oui balaa le ministre que je respecte beaucoup. hein donc ministre Moussa Daffé que je respecte beaucoup. balaa mu doon wax loolu pour man bu ma nekkoon place am damay wax président bi nañu def assise nationale de la décentralisation. Hmm. càmbar ci càmbar ko. Hmm. càmbar parce que pôle territoire yi président Macky Sall jéemoon na ko def loo tax mu arrêté ko. <laughs> taxawal na euh, premier kii bi communalisation intégrale maanaam communes rurales yi yëpp nekk nañu commune. mu dindi région yi comme collectivité territoriale mu indi euh, département. Mhm. lan moo desoon territoire yi lu tax mu taxaw. Ah, lu tax mu taxaw. amoon na jafe-jafe amoon na ñoo xam ne nee nañu dama dugg fii dama bokk fii fii laa bokk et tout de suite amoon na. Mhm. moo tax ñu te arrêté ko. mais loolu moo a am ci. mais mais mais lu lu yées doon mën na am parce que yow mënoo xëy mu ne nga di huit alors que même les di disaient six assises yi. six la ñu waxoon maanaam les six zones écogéographiques loolu la doon wax mais man waxuma ni siis mooy am mën na am sax ministre bi lu mu wax mooy moo war a am maanaam mooy mooy bu baax bi mais bu baax bi maanaam même bu dee bu baax bi dañoo war a impliquer acteurs yi yëpp ci réflexion bi comme ça appropriation bi day day yomb te loolu rôle alors ACCT moo moo nekkoon loolu moo nekkoon euh, dem ci askan bi déglu leen. Mm-hmm. déglu ñi ñi ne au niveau central euh, déglu leen. ñu seet nu ñuy defee ba. Euh, maanaam mu am harmonie entre les deux positions. d'accord loolu mooy rôle hmm. ACCT donc ACCT nekku fii pour gérer ay pôle xam nga pôle yi dañuy gérer. Hmm. Hmm. dañuy gérer seen gox-goxaat yi mais ñun duñu gérer. d'accord dañu nekk fii pour xalaat pour que maanaam yombalal président bi. pour que parce que ñun dañoo gëm ni dañoo man mii Yves Lamine Cissé dama gëm ni. développement Sénégal bu ñu ko hmm. bëggee def. décentralisation mooy yoon bii gën a gaaw. mooy priorité mooy priorité. d'accord donc décentralisation bi. Hmm. nañu dañu génne moyens yi. Hmm. ñu jox ko collectivités territoriales yi. ñu taxawal même bu dee dañ koy tuddee neneen mais lu mel ni ACCT. mu nekk fii di xelal. mu nekk un dispositif un dispositif. oui je pense loolu moom am na maanaa trop. ci décentralisation bi. d'accord nañ ko fonk parce que pour man aussi. ce serait un recul. Union africaine bëgg taxaw taxawal fii siège u conseil supérieur. ñu ne au conseil amatul Sénégal loolu moom voilà lu garaaw la même même maintenant euh, tey li nga xam ni moom moo jëm ci au conseil bi déjà euh, le fait que ñu génne fa président bi est-ce que dafay wax ni dafay am blocage ci ni ngeen di liggéeyee ou bien. bon on attend on attend la réaction du président le président c'est la clé des voûtes des institutions. maanaam institution yi yëpp. waay ñoom ci ci ñoom la ñuy. te moom lañ jokk bu bu amul décret yow mënoo def liggéey. Mm. donc moom moo fi nekk euh, supervisé yëpp. maintenant comme dindi na président bi ñu ngi xaar réaction am parce que normalement moment bii nii c'est le moment de convoquer la quatrième session. te moom moo ko war a def. waaw ah, moom mënoo moom war a def décret. comme moom dindi na président bi. waaw ah, non non je ne sais pas je pense que on n'avait pas encore écrit président pour lancement du parce que ñu ngi ah, soog a pare. yéen yéen koy bind. waaw dañ koy bind. Mhm. pour que moom mu jox ñu autorisation pour ñu def quatrième session bi mais je ne sais pas encore mais je pense que les jours à venir on sera élucidé président bi comme moom moo dindi président HCCT ñu ngi xaar lu muy def mais en tout cas li wóor maanaam mooy HCCT ñaar nit ñaari institution ñu ko mën tas muy. Euh, mu ne ñaari façon référendum référendum wala assemblée nationale. voilà te assemblée nationale bañ na. bañ na voilà donc référendum moo des. nañu xaar ba référendum yi suñu defee référendum ou bien euh, léeg-léeg dañuy tas assemblée nationale dañuy demaat à yeneen élection mhm. mais ñoom bu ñu amee seen seen majorité ils font ils font dissoudre le le loolu amul problème. d' accord yéen leen def dara yéen membre au conseil du collectivité territoriale wala dañ comme. prérogative du mhm. a pas eu mais li ngay jàpp ñenn ñi ne dañoo war a su euh, génne ñi nga xam ne ñooy soixante-dix personnes yi nga xam ne nommé nañ leen. mais mais mais mais yow kon kon kon kon ce sera plus la loi parce dit que ñenn ñi ñu ngi koy wax ci suuf. dégg non non mais boo génnee cent da ngay dugal yeneen soixante parce que les, les parce que la loi dit que de cent cinquante membres n'est pas composé de quatre-vingts membres xam nga ndax li ma wax leer na wala leer na dégg am leer na boo dindee yooyu anaa nga indi ñeneen rek. te ñeneen ñi ñuy indi ñeneen ñu si bari ñoom euh, yéen a yéen a Macky Sall yéen a benn bokk yaakaar ñu ci ëpp. non Macky Sall moo non Macky Sall. moom dafa fal am ñoo xam ne dañ dem élection. non élection 80 80 yi. ñoo demoon élection. oui après 70 yi président Macky Sall moo leen tànn. Mm-hmm. mais tànnee boobu tamit est pas des. c' la basé wu. certainement parce que pour man man mii man ci laa bokk mais dama envoyé sama CV dama envoyé sama CV et mon CV est très riche juste ban nekkoon naa ko euh, déjà en 1986 nekkoon naa conseiller rural à d' accord. man en 98 bokkoon naa ci consultant yi demoon jàppale waa Mali pour le compte de Endagraph bokkoon naa ci consultant yi pour jàppale waa Mali pour taxawal seeni commune au Mali j'étais à la région de Kaay maanaam bu ñu paree région de Kaay étude yi Kaay ñu dajee ko pour situer. d'accord man ma nekk président Koumtial en 2009 ma nekk maire 2014 ba léegi. kooku amul bagage <laughs> ci wàllu décentralisation. ah xam nga ci dara kay. kooku amul dara si wàllu décentralisation. si moom lay nooyee. <laughs> je suis un militant de la décentralisation. moom nga xam moom laa gën a xam. maanaam boobu maanaam maanaam ñaari affaire laa gën a xam fii ci àdduna muy décentralisation et coopérative je suis aussi un militant de la des des coopératives. je suis un coopérateur donc pour man vraiment ñu ñu. ñu wàññi politique bi daal. politique ñu wàññi politique bi amul njëriñ. <laughs> d' accord alors voilà maintenant waaw politique bi duñ si jóg parce que déjà gis nañ ni euh, Yves Lamine Cissé parti socialiste nga bokk itam euh, Benno Bokk Yaakaar euh, président Macky Sall tas na ko même si bu fekkee dañ ko war a inventé waat mais ci jamono jooju yéen parti socialiste yéen a ngi beru xool seen biir itam yan doxalin ngeen war a amaat ci li nga xam ne moo jëm ci élection peut-être bu fekkee dafa dafay am élection législative anticipée ou pas mais gis nañ ni Amadou Ba moom génn na léegi beru euh, nouvelle responsabilité ba lancé na li nga xam ne processus lancement parti am euh, déjà yéen da jàpp ni defoon ngeen seen warugal boobu mu mat sëkk gunge ngeen ko bu ko neexee mu créer parti. waaw defe naa ne loolu euh, jëpp damay rafetlu di am xel bu rafet ci Ousmane Tanor Ousmane Tanor Dieng vraiment na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm. Ousmane Tanor Dieng ñu doon wax ni liy yàq coalition bi bu mu jógee ci ñun te defal nañ ko ba mët sëkk defal nañ ko ba mët sëkk ba sax ñu bàyyi fa ay plume voilà loolu moo réalité bi donc parce que bi bi ñu waxee ni euh, Macky Sall le 3 juillet mu def kii mu ni du dem après mu mu ñun ñu daje ñëpp daje ñun bu ñu dajoo au niveau du Parti socialiste dañu ne woon. am tamit nga Ndiaye jox nañ la carte blanche même bu dee am na ñoo naan sax carte blanche baaxul mais <laughs> joxoon nañ ko carte blanche am tamit nga Ndiaye. que dañuy yeneen parti peut def noonu après ñoom bu ñu dajee au niveau des leaders ñu jox euh, par carte blanche Macky Sall. ça veut dire que ñun Macky Sall jox carte blanche. donc bu ñu ko joxee carte blanche mu wóor ñu mu joxoon ñu Amadou Ba le PS organiser congrès bu bu am doole peut-être bii gën a am doole même. pour euh, vraiment euh, impôt pour euh, lan installer en tout cas la candidature de. Amadou amadu Ba. ñu dem ci ak ak à aussi pour les élections def nañu lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp def nañ ko pour mu gagné loolu la ñu mën gagné wuñu voilà comme gagné te pour ñun. Benno Bokk Yaakaar 2012 dañ ko kii yoon on on a gouverné on a gagné ensemble on a gouverné ensemble xanaa faw fu mu nekk nii waa PS war dañu taxaw tuuti xolaat seen bopp. ci loolu ngeen nekk. ci loolu dañ nekk parce que keroog def nañu benn. séminaire benn séminaire. mais pour xoolaat. Euh, voilà ñun la fa fu ñu war a jaar mais di di di fa génn tendance bi xam nga conclusion yi génnagul. mais tendance bi mooy le PS veut veut veut veut revenir veut en dafa bëgg couleuram yi mu ñëwaat la couleur verte étoile rouge dañu bëgg mu ñëwaat ak doole ci paysage politique bi loolu pour mu am il faut que aussi ñu camal suñu bopp. ñu xam ni am na am na ay gàllankoor ci biir gàllankoor yooyu aussi dañ ko dindi beneen gàllankoor bi maanaam mooy ñun xam nañu ni les jeunes qui ont 30 ba quarante ans tous les jeunes là presque ne connaissent pas le PS parce que PS quand même jóge na pouvoir depuis 2000. <laughs> donc loolu euh, ñun ñu war a liggéeyaat te loolu dama gëm ni. Euh, parti bi dina jox ndaw yi place am maana les responsabilités pour que parce que ndaw ndaw moo mën a wax ak ndaw donc ñu jox ko responsabilité pour que vraiment euh, parti bi jógaat jëm kanam te ñu gëm ni 2029 mën nañu ko mën nañu amat pouvoir bi. même bu fekkee ni itam du du yomb parce que gis nañu régime bi fi nekk actuel euh, ndaw ñi bokk nañ ci li ñu leen porté au pouvoir te président de la république mi incarné itam ndaw ak ñi mu àndal euh, kon yéen il faut que ngeen soppi doxalin. ngir mu leen fekk si non loolu wër na fu mu nekk nii euh, président maanaam ñi fi nekk ñi yor dëkk bi actuellement on les félicite vraiment pour cette prouesse. am 54 pour cent au second tour pour une partie d'opposition quand même. du ñëpp a koy am. du ñëpp a koy am. voilà mais ñu ngi leen di féliciter di leen yéene aussi jàmm di yéene aussi ñu réussir parce que seen échec ci ñun lay dal donc moo tax mais mais dama gëm ni le parti socialiste doit s'adapter dañoo war a adapté wu ci contexte bi pour que ñu xam ni le parti mënatul nekk li mu nekkoon avant yu bëri dañ ko war a soppi tey ci parti bi am na ñuy wax naan que sax est tour bi. même si je sais que ñu bare contre nañ ko après d'accord ñu ci changement tour bi mais faw ñu adapté wu ci contexte actuel bi. Mhm. maanaam tey dañuy wax ndaw sax mais du ñu ndaw ku am 40 ans presque nekkatoo ndaw ah. ndaw Sénégal 35 ans la mais nañu jox ñii gën a féetee ndaw nañ leen jox seen gëdd ñu jox leen ñu wóolu leen. Mhm. gunge leen. gunge leen nekk seen ginnaaw. loolu suñ ko defee am naa yaakaar ni le parti mën na ñëwaat. mais suñ ko deful moom. lu mm-hmm. yomb de. est-ce que cela veut dire que ubbeeku la <coughs> parce que itam même bu fekkee cité woo ko waaye li nga wax itam yóbbaale na ñëpp euh, gisan nañ fi ñoom xalifa Sall. ñoom Barthélemy Diaz ñoom euh, ki nga xam ne moom moo di ay Tall Sall euh, ñoo ñëpp ci parti socialiste lañ bokkoon ba ci ay maître Moussa Bokar Thiam mujj gi dem APR euh, est-ce que tàllal loxo bi kon yéen a ngi koy woyal ba tey lépp nekkaat benn ngeen liggéey. mais Bemba Dramé lii wóor maanaam mooy ñu nekk benn ñu ñëwaat ñu xaajaloo ñu ko ne di xaajaloo ci opposition ndax lan pour man. ñu ñu ngay wax tuuti noonu yëpp kenn wartul am maanaam bëgg nekk président kenn wartul am ambition président. Mhm. parce que âge bi déjà. âge bi voilà. Mhm. dama gëm ni ñooñu nañuy ñëw indaale seeni ndaw yi boole ko ak suñu ndaw yi ñu installaat parti bi ñu tànn kenn mu jiite man loolu laa gëm. Mhm. suñ ko defee suñu àndee on gagne suñu àndul on va continuer à être l'opposition te bu yàggee parti yooyu yëpp ñooy ñooy ñooy tas moo tax je pense que ñun tey on a intérêt en tout cas ni ma gëm mooy Khalifa Sallou ñoom Souti Touré ñoom et man turi yi bari na. Mhm. ñoom nañu ñëwaat ci parti bi. seen kër la seen kër la. Mhm. ñoom ñun ñii on est arrivé peut-être tard mais ñoom seen kër la sa kër nekk bu fekkente ni xam nga ni mu ngi mu ngi tàkk muy làkk doo ñëw fay. am naa yaakaar ni vraiment. Mhm. Euh, ñun nañu ñëwaat ci parti socialiste bu ñu ñëwaatee peut-être débat bi on peut reposer ça ndax day tudd parti socialiste wala day tudd leneen. Mhm. loolu c'est pas le plus important le plus important c'est couleur bi nañ ko maintenir couleur verte moom mën ñu ko mel kii. Mhm. tur bi mën nañ ko téye ko mën nañ ko changer même si keroog le euh, politique dafa retier nii dañuy maintenir tur bi man awma ci problème. mais dañoo war a soppi doxalin. Ah. soppi doxalin maanaam mooy la démocratie dañoo war a limiter de mandats. maanaam boo nekkee secrétaire général du parti. oui boo amee benn mandat ñaari mandat jeex na da nga war a bàyyi keneen. démocratie boobu moo war a am mais quelqu'un qui est secrétaire général à vie je pense que war nañ ko moytu. mooy indi problème yi mooy indi problème yi mais bu amee démocratie. Hmm. ñuy changé échan ñuy changé nu mu tuddi euh, les les secrétaires am naa yaakaar ni jafe-jafe yi du am parce que keneen moo xew souvent. nit ki day toog euh, peut-être moo dal maa maa ngi fàttaliku maître Moussa Bokar Thiam. bu dem oui voilà c' est secrétaire adjoint bu euh, porte parole moo toppoon. ci wilaan mais peut dafa dem ba gis ni voilà mag yi peut-être xajaluñ leen moo tax mu dem. mais su doon peut-être ñun euh, dispositif bi permettre na xale yi ñu mën a am accéder au au poste de responsabilité. Mhm. voilà je pense que loolu moo gën en tout cas pour man dama gëm ni. le responsable du parti socialiste doit être un jeune. comme le président de la République monsieur Diomaye Faye moom ñaar ñoo ñoo mën a defante man mii mënuma defante ak moom. <laughs> yow la nga jël ji joxe sa xalaat rek. damay joxe sama xalaat rek. c'est donc pour man c'est important que ñun dañoo nekk fii pour joxe suñu xalaat en tout cas vraiment loolu PS moom. war na mën a ñëwaat ci condition yooyu rek. d'accord ñu ubbeeku voilà ñun ainsi de suite. Euh, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax yow yaay maire bu euh, Morolan commune bu Morolan itam euh, nekk président commission au conseil des collectivité territoriales yow lañ doon dalal wax naa nañ lu yaatu ci li nga xam ni itam moo jëm ci njëriñal au conseil de collectivités territoriales bi nga xam ni régime actuel bi amoon na yéene daal di koy supprimer moom ak conseil économique social environnemental waaye moo lànk ba ci le président de la république itam jël décret génn fa ki nga xam ne moo di Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo ci conseil économique social environnemental waxtaan nañ ci lu yaatu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi. man maa lay gërëm di la sant di ñaanal seen kër gi. Mm. yàlla jëmee ko ci kaw. ki ko jiite yàlla may ko wér may leen yëpp wér. amiin amiin en tout cas tey. Euh, vraiment am naa mbégte ñëw te defe naa ni kàddu yi ñu wax. Mm-hmm. ngeen baal ñu àq ay nit lañu rek. mais mhm. lii wër maanaam mooy. Mhm. lii daaw ñu ko woon def. Mhm. parce que ñun amuñu woon droit. Ah, di wax il fallait que ngeen génn. mais fu mu nekk nii <laughs> dañoo am obligation génn parce que quand xam nga xam nga ñun bu ñu bu ñu bu ñu dàkkoon jaar. jaar bu duggee ci pax bi. dañuy jël safara. dugal ko ci biir di am di am saxaar quoi. yaakaar ni mën na génn. non boo dugalee saxaar bi day génn loolu moo ñu dal fu mu nekk nii maanaam dañoo nekkoon bi mais il faut ñu génn. il faut ngeen génn moo tax ñu génn rek en tout cas mhm. gën a leeral askan lan mooy HCCT. moom c'est important. Mhm. en tout cas merci ngi ñi nekkoon ci xarala gi Léopold Mendy moo nekkoon ci rajo bi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci Rewmi TV. ah ama bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral ñu am sañ-sañu saytu waa yaana maara ko wax. yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm lépp jóge ci askan wi dellu ci moom di li ñu gëm njiit yu fonk askan wi dogu ci ay bëgg-bëggam doon ay royukaay am lu ñuy jomb tey jubal ndenkaane bu amul saytu dafay yomb ci luubal ñu doon citoyen modèle ngir ñu gox bi di suñu yitte nangoo jëmbat buy bi naam duñu fekkee fiñ koy wittee xam suñuy wareef ràññee suñuy priorité fexe naatal ëllëg ñëpp xéew li ni bésu korité lépp li nga am ngay joxe fexe nu sa gox doxe dafa dëgg ne la massa bul nangu dara di fa sooxe saytu jëlee fi laissé aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareefu bépp Sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa